ay kàddu ay kàddu nuyoo lay doon ay kàddu cant ay kàddu ñaax sama bopp ñaax ñi nga xam maa ngi nuyu ñi dëkk ci quartier Randoulène yépp di ko jaarale ci imam ak ci délégué de quartier ak borom kër yi nga xam ni ñu ngi seen kër di ñu dégg di nuyu jeunes yi nga xam ni bi ñu defee seen analyse politique te jël décision dugg ci biir terrain politique yore benn association bu ñu tuddee adhérent association pour le développement de Randoulène ñoom ci seen bopp à travers sama sœur Aïcha Aw ñoo def appel woo ma ma ñëw fekk si leen ñu waxtaan bi ñu waxtaanee sunu kàddu yi ànd ñu jël décision rallier le mouvement Dolil Macky kon yéen waa adhérents tous les membres et les responsables maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu sama rakk di sama xarit ñépp xam suñu diggante muy Habib Kane le président du réseau pour le développement de la région de Thiès su ma nuyoo Habib nag nuyu naa ay Aïcha Aw mi nga xam ni mooy son bras droit nuyu tous les membres du bureau du réseau nuyu tous les représentants des ki qui ont adhéré au réseau pour le développement de la région de Thiès maa ngi nuyu sama benn góor boo xam ni nijaay la ci man nekk un communicateur hors ñuy daje ay yooni yoon ci ay événement muy Baye Cheikh Thioune mii toog dafa dégg rek ni man dinaa fi yow mu toog ne di ma xaar ba heure bii kon Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la yóbbante nuyoo nag ci ki nga xam ni ñoo ko bokk muy sama sëriñ di sama kilifa muy sëriñ Assane Kan ñu fay daje tout le temps maa ngi nuyu sama rakk joo xam ni dëgg la bokkul ci mouvement Doolil yi ñu bëri sax dañoo defee ni ci la bokk mais ak mbaaxam ak bëgg a jàppale Macky sàll tax na ba mu am man relation particulière muy Birane Mbaye nekk un jeune boo xam ni lu demale Macky Sall kanam rek moo ko ñor. ma koy remercier bu baax a baax di bëgg yëkkati nag ay kàddu yoo xam ni dama bëgg ñu déglu ma ak xel parce que période bii ñu toll dafa nekk une période très sensible ñu nekk euh, dëdmal ay élection di élection présidentielle war a am le 24 février bii di ñëw ñu nekk au mois de novembre novembre décembre janvier février ñëw kon période bu doy waar na période bu sensible la sama kàddu fi ma koy njëkk a teg day nekk un discours d'apaisement du climat politique parce que nag fii ñu nekk di randu ñépp xam nañ ni c'est le fief de l'opposition du ma tudd tur du tudd parti mais xam ngeen ni coalition Benno Bokk Yaakaar mësagul gañe fii ci Randoulène parce que Randoulène centre de vote bi fi ne mooy centre Malick kayre saa yu ñuy limee xob yi li ñuy constaté mooy opposition mooy gañe te naka jekk ñi nekk au pouvoir dañ ko doon nangu parce que loolu mooy démocratie fii ñu jëm tamit dama bëgg démocratie boobu nga xam ni moom la ñëpp gëm war nanu leen doon benn ñi nekk parti opposition ñii nekk parti au pouvoir dama bëgg ñu rafetal liggéey bi ñu dem ci élection ci jàmm nit ñi mën a vote ci jàmm kenn ku nekk am liberté wu voteel ki la neex parce que quartier bi benn la te ñoo bokk ndey ak bàyyi kenn ku nekk nag am nga liberté nga far ak ki nga bëgg mën mi wax ak yéen nag ragal péete day xañee wërsëg man Macky Sall laay liggéeyal moom laay jàppale looloo tax ma créer le mouvement Doolil Macky loolu defe naa lu leer la créé wu ma ko pour ay post wala leneen mais dama gëm ni politique bi Macky Sall teg buñ ko jàppalee dina jëmale senegal kanam indi na fi benn plan boo xam ni ñi jàng xool plan bi xam nañu ne lii bu ñu ko appliqué ci diiru ñaari mandat yi ñu ñaanal Macky Sall Sénégal dina nekk un pays émergent émergence bi gën a yokku nag ñuy gën a jege l' année deux mille cinq mi nga xam mooy année butoir pour sa plan Sénégal émergent rendu leen nag man dama fi am yaakaar yàgg di fi liggéey dans l'ombre ànd ko ak sama rak Habib Kane Habib nekk xale boo xam ni ku am vision la ku simple la ku modeste la mais ku nangoo dimbalee la yàgg nañ ci ànd ay atti at man ak moom réseau bii mu taxawal yàgg naa di ci dugal sama loxo te waa randu leen xamuñu ma Habib di tëral ay programme am di ñëw ci sama bureau ñu ciy waxtaan may yëkkati li ma am di ko ci jox muy taxawal réseau bi di jàppale waa randu leen ba fi mu toll nii jàppale bi yematul randu leen rek mais c'est dans tous les quartiers de la ville de Thiès kon Habib maa ngi lay féliciter di la won ni liggéey boobu ngay liggéey mooy liggéey bi am solo nit ñi boo bëggee ñu déglu la am fu ñu la teg wala ñu fal la da ngay nangoo jaamu seeni soxla lépp lu ñu bëgg nga taxaw ci guddi ak bëccëg seen soxla na la gënal sa soxla bopp yow te yow Habib ci loolu nga nekk li ci des rek mooy conseil bi ma lay jox yow waxtaan nañu dama bëgg nga gën fësal sa pété ci coalition benn Bokk Yaakaar ci jàppale président Macky Sall mbooloo mi nga àndal waxtaanal ak moom man maa ngi lay dégg tout le temps ci say intervention ngay wax ni réseau bii ma yor man te opposé wu parce que développement la ñu woote te kii développé mooy kii yore réew mi kon boo àndee ki yore réew mi développement boobu ngay ñaan dafay gën a gaaw loolu moo tax ma ne invité yaa ngi ci naam mais nga gën a fësal sa pété ci wetu président Macky Sall. loolu lu ci am solo la samay nuyoo dama koy wax te jeexagul maa ngi nuyu délégation bi nga xam ni moom la docteur Ndiaye sama xarit yónnee di leen sant di leen gërëm bëgg a taxaw foofu tuuti def benn invite bu may adressé o responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci période pré campagne tey mouvement Dolil Macky moo woote fii ranu leen ñëw wuyu si ay jeunes yow xam ni. mus ñoo engagé wu ci politique te jël décision engagé wu li ma bëgg mooy ñi nga xam ni ñu ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar nañu xalaat ay organisation yoo xam ni ñun ñëpp ñoo koy bokk ay organisation yoo xam ni moo xam meeting lay doon wala lu mën a doon nañ ko organiser ci turu coalition bennoo Bokk Yaakaar ci biir randu leen par exemple nitu docteur Ndiaye yi ñëw nitu Pascal yi ñëw nitu Abdou Mbow yi ñëw nitu keneen ñëw nitu keneen ñëw ñun ñëpp ñu boole sunu doole defandoo loo xam ni ñëpp dañuy xam ni ñii Macky Sall la ñuy jàppale ñoo koy liggéeyal fii ci randu leen loolu bu ñu ko defee ranu leen def ko ci yeneen quartier dinañ won population bi ñi nga xam ne ñooy jàppale président Macky Sall benn lañu ils sont unis ils sont soudés derrière leur candidat le président Macky Sall ginnaaw kàddu nuyoo yooyu nag dama bëgg a gërëm bu baax nag. ñi nga xam ni ñoo jël décision fekk si ma ci langue politique ñu liggéey politique nag doon loo xam ni lu métti la parce que déjà choix bi ngeen def choix bu yombul la xam naa ko parce que vous aviez l'embarras du choix responsable yi bëri nañ ci cees ñi ma ci ëpp njëriñ sax jombul ñu ngi fi am na ñoo xam ne yor nañ ndombal tànk yu ma yoru mais loolu yëpp xoolu leen ko dangeen a xool action yi may def fii ci randu leen ngeen wax ni kii nga xam ne mi ngi jéem te ñun jeunes yi ànd gu ñëw moom muy jëm ci quartier bi bu ñu àndeek moom dina gën a sawar dina gën a am ndëgër laay pour gën a liggéey fii ci Randoulène wax ngeen dëgg jël naa engagement boobu parce que yéen jeunes yi nag bu caaxaan jeexee dëgg des am na ku ko fi wax jeunes yi ñoom ñoo gën a méttee mobiliser sur le plan politique kon bu ñu toogee ñoom seen bopp jëlal seen bopp décision ñëw dugg ci langue politique bi loolu mënuñu lu dul saluer ko rafetlu ko dégg naa fi ay waxtaan ñi nga xam ni ñoo représenté ñaari ASC yi fi ne di ASC Jaloore ak ASC Goney Randoulène on m'a tout de suite ko ñoom ñaar ñëpp dem nañu final bi may ñëw indi naa benn jeu de maillot dama ko prévoiroon pour ASC Goney Randoulène dinaa ko joxe mais beneen ASC bi filee deux trois jours dinaa leen jox jeu de maillot muy ñaari jeu de maillot jël naa engagement aussi jël naa engagement ci seen jour finaal fi ngeen di defee regroupement ñëpp xam nañ ne dafa bëri ay frais dinaa dugal sama sama loxo ci les frais de regroupement jour yi nga xam ne ci ngeen war a dem final. te it su ma yégee jour bi ngeen invité ma incha allah dinaa ñëw fekk leen stade pour gën leen a supporter ñu ñaan yàlla ndam li mën a ñëw fii vendredi. très bien. nee nañ ma benn final bi vendredi la le 9 la ñan ñooy final la ñaar yëpp vendredi la le donc incha allah balaa vendredi le 9 ñaari équipe yëpp dinaa leen jox jeu de maillot benn bi ñëw na dinaa ko joxe beneen bi fileeg quelques jours dina ñëw bu ko defee ci avant regroupement bi équipe bu ci nekk. dinaa la jox une subvention pour nga mën a supporter les frais d'organisation pour le regroupement ñun ñëpp nag ñu ànd ñaan vraiment euh, final boobu ñaari équipe yëpp indi fii ndam li ñu mën a dajewaat fii àndalu leen mën a fêter ces deux victoires loolaa leen di ñaanal kaddu yi du gudd dama am mbégte am satisfaction parce que lii dafa doon lu jafeñ nga toog ay jeunes yoo xam ni mosuñoo politique nekk dans un fief boo xam ni opposition naka jekk moo fa ëpp doole ñu woo la jël décision ne yow la ñuy àndal loolu wax dëgg yàlla da ngeen maa yokk courage da ngeen maa yokk détermination da ngeen a yokk sama engagement foofu daal laa bëgg a yemale samay kàddu yéen nag waa adhérent am na enveloppe bu ma leen indil mu nekk sama participation ci seen euh, association bi ngeen def ko ci seen caisse di ci liggéey jël naa engagement également désormais bépp activité bu ngeen di def na ngeen ma ci boole dinaa ci joxe sama participation man nag wuute naa ak yenn responsable yoo xam ni neexaay waxtaan bi dalay xiir nga wax loo xam ni doo ko def di jël engagement yoo xam ne doo ko respecté man duma genre boobu man dëgg laay wax ak yéen li nga xam ni mën naa ko laa jël engagement ci seen wet leneen lu ma mënul te mu nekk doléance su quartier bi nangu naa sol sama dàll bi ci dox di ci wax bu mu sotti bu sottee ñu xam ni yàllaa ko sotti parce que nag politicien moom dafa war a prôner ay valeur fexe ba bu ëllëgee koo dajeel ci mbedd mi doo rus doo sëgg loolu pour man c'est très important mais jàppale ni daal jël naa engagement désormais nekk ci seen wet di leen jàppale. ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk sa ak sa sant di tàmbalee ci nuyoo bi suñu président Babacar Pascal Dione moom mi nga xam ne tey moo ñëw seet suñu di remercier encore waa koñ bi yëpp ndax euh, lii dafa lii dafa dafa yombul quoi mooy woote ñu wuy si la di remercier encore sama waa mouvement adhérent ñoom ñi nga xam ni tooguñu seetaan ñu fii benn yoon. li may wax nag du bari mais euh, randu leen euh, monsieur le président dafa doon quartier boo xam ni <coughs> euh, quartier bu metti la ñun xam nañ ñu xam nañ ni que école bii di école Marie Kayra xam nañ ñu bu baax lu mu jaral monsieur le président Macky Sall mm-hmm. te koñ bi fii nii ñun ñoo fi dëkk ni ko petit waxee kuñ fi fekk gañe ñu ñun ñun la neex ñun ñoo la voteel mm-hmm. kon ku fiy gañe fii ñun ñoo lay voteel suñuy carte ñu ne ñu depuis bi ñuy depuis bi ñuy bi ñuy bi ñu doonee xale ba léegi mun naa ni dañuy gis benn benn benn du ma wax sax gouvernement du dara loolu mais ñoom ñëw ñu jiite. di ñu nax ci affaire yoo xam ni xamuñu ko di ñaanal encore une fois waa quartier bi ñu xam bu baax li ñuy def bu élection 2019 yi jotee parce que ñun dañoo sonn ci li ci toog à chaque fois. di xaar euh, ay affaire de gouvernement yoo xam ni ou bien ay maire yoo xam ni defaluñu li leen war monsieur le président suñu quartier randu leen dañoo soxla kenn koo xam ni da leen da leen jàppale parce que jeunes yi dañuy nekk fii suñu xëyee ci taatu garab yi la ñuy toog ñii nga xam ni jàng nañu am seen i diplôme da ngay gis koo xam ni dafa jàng ba am ay diplôme li mu li mu li mu li mu jàng mënu ko jariñ beneen liggéey lay liggéey pour sutur la pour dimbali ay parents ñun sonn nañ ci loolu parce que euh, suñu yaay yi ngay gis da ngay gis homme politique yi dañuy ñëw fii à chaque fois suñ ñëwee suñu yaay la ñuy jëm mais dama leen bëgg a xamal ni leen foofu du yoon bi ñun jeunes yi ñooy yoon parce que ñun suñu amee mel na ni suñuy parents am nañu ñun ngay jàppale ñu jàppale suñuy parents monsieur le président li ngay def ci koñ bi ñun bi ñu kon niñ ko ni ko ñuy waxee ñi ngay def ci koñ bi gaa bi ñu ànd ak yow yàggul mais ñun daan nañu ko gis lumière yi suñu koñ ñëpp xamoon ni dafa lëndëm mais lampe yi nga taaloon boobu ba léegi mi ngi tàq tali bële ñëpp xamoon nañu ni mu mel mais bi nga fa jaaree gis tali bi yow jaaroo fa ñaari yoon mu yàqu benn yoon nga fa jaar defaral ñu ko ñun Babacar encore dañu lay remercier di la dénkaat suñu quartier leneen li ma lay wax mooy suñu ñaari ASC yi parce que ñun ku xam randu leen xam ne sport mooy suñu mooy suñu lépp sport la ñu gëm sport ñëpp sport la ñuy fooyee ak ci loo mënti nekk ci sport ngay nekk donc soo jàppalee ñun suñu équipe yi mel na ni jàppale nga waa koñ bi yëpp muy ga euh, randu leen ak ASC Jaloore benn la. benn la koñ bi benn la lépp randu leen la di la woowaat monsieur le président pour nga jàppale ko di remercier encore ñëpp ki ñuy wax euh, Aïcha Aw. Euh, Aram Sylla ak ak sama waa association euh, Alaaji Fall euh, Petit Yacine Ndiaye Aram di remercier ñëpp Yirim gis nañu seen taxawaay rafet na lool merci. maa ngi leen di nuyu ci nekk si tur ak sa sant ah di nuyu Babacar ak délégation bi mu àndal yëpp Dame Moussa Gueye yéen ñëpp maa ngi nuyu maire waaye ñu ngi ñu ngi surtout ak sasant te c'est vrai que ni li ñu wax sànq lu am solo la xam nañ ni poli randu leen bu ñu jógee ci politique mag ñi ñëw ci ëpp lu ma ko mën a ñoo ci ëpp li ñu yëngatu ah tey fii jotaay yi ngeen toll nii mag ñee ko doon def mais tey yàq des jeunes xaw ma si yaa ñoo xam ne sont adhérents ñu ngi ci yeneen parti wala quoi soit mais je vois que ni am na lu leen boole. mais am lu ma gën a neex ci jotaay bi mooy bi ngeen boolee li ngeen def ak gone Randoulé parce que man je le dis toujours à bi voix su waa Jalooré di wax dama ne leen man je si pas un fils de Jalooré mais je suis moo nekk ci biir Randoulé gone ndu leen la bokk kon man damay ëmb bokkul lépp te amul lu may nëbbu fii parce que samay rakk ak samay frère ak samay sœur rek a fi nekk kër yi ma fi dugg añ fi nelaw fi bëri na fi te duma tàgg kenn. kon yaakaar naa ne fii ma taxaw war naa fa taxaw wax ah Babacar man du ma wax ak ñoom parce que man li ma war sama diggante ñoom maa ngi koy def yow laay waxal yow mi ñëw ñoom ñu tànnal la seen bopp kon ñoom niñ ko waxee tànn gi nag kon ni ngeen ko waxee yéen ko tànnal seen bopp moom mu xam ne yéen ko tànnal seen bopp mu jël temps am amam mën-mënam ñëw pour partager ko yéen. mais nag kees dafa rëy am feneen fu mu sukkandiku ci yeneen branche yoo xam ne ils sont dans les différents quartiers lu mu def fi def ko ci beneen koñ rek waa ko ñooy gis seen bopp kon nag il faut que ñëpp ñu ànd ak moom ci lenn mooy maanaam li muy am ñu xam ne 58 quartiers ko moom ram leen moom waaye nañ fexe ku ci nekk mu fexee moom mu teg ci loxoom ba nga xam ne ngeen xam fi leen jëm moom lenn ñoru lu dul Macky Sall mouvement bi mu créé mouvement dooleel Macky Sall su fi Macky Sall nekkul tey soxlawul leneen cre créé bokkul ak ki créé mouvement topp suma di dem rek kon mouvement boobu nag mag Sall ko ñor te mouvement boobu Macky Sall dafa war a dem élection présidentielle mu yaakaar leen ci yéen ñi nga xamante ni yéen gën a naqaree génne pour voter te yéen a war a tax gars yi gañe mun leen kaa leen ngeen génn ngeen jàppale ma Macky Sall gañe au premier tour te kooku am na ci yéen waa ren leen am ngeen ci une part de responsable dama ne kees yëpp bu mu génnee dajale. ngeen voté fépp yéen ngeen génn gañal école Babacar école Malick Kéré Babacar Pascal jàpp leen ni Babacar Pascal gañal Sénégal e eh, wan na leen ko élection yi passé def na fi loo xamante ni ñëpp xam nañ ni école Malick Kéré bi ñuy voté benn leader fi nekk mu nekk dans l'opposition muy Idrissa Seck amul parti pouvoir amul parti opposition amul kenn moom rek a fi nekk daaw bi ñuy def élection yi moom moo fi ñëw jàppale waa Randu leen taalal leen seen i lamp jàppale ASC yi jàppale jigéen di financement yi may leen ay carnet mutuel à travers ma personne daan nañ leen ñëw jàppale ma te effectivement jàppale ngeen ko parce que Idrissa Seck mu ngi doon rawee ay 2000 voix bii ba mu rawee 500 voix kon kenn participe ngeen ci liggéey boobu loolu nag lañu bëgg mu dëggu li koy dëggal mooy ba mu ñuy gagné ci 500 voix yooyu peut-être y avait l'appui des autres leaders tels que Thierno Alassane Sall tels que Khalifa élection présidentielle yi mën naa bañ a demee noonu bu yaa bu ma yaakaaree ne la mu andi woon ak yéen ngeen ko je pense que ni résultat bu baax dina am fii incha allahu karim wasalaam vraiment yooyu laa amoon kàddu yu bu la jiitalee boo leen ay xale damay am problème ndax ay xale neexu noo lijjanti neexu noo jubbanti comme nag yow la yàlla boole ngir nga ànd ndaw ñi te looloo la fi indi ñu waroon def lu ne. jël lépp ba toog di la xaar ba heure bii ngir nga ñëw kon boo ñëwee dañuy yël lépp delloo loxo ñun nag danoo toog yàgg di la woon mun noo fexe ba gis la suñ dëkkandoo yii di waa jaloore ñoo la gis wax ni ne yow yaa ngi moo tax ñu booloo doon benn ñëw ngir yow kon tey jii danoo jël lépp delloo loxo ngir sa jëmm ji ñun xamul dara bi nu juddoo xamuñu kenn Macky Sall lan fi fekk comme que Macky lan fi fekk te yaa teewal Macky suñu këyit yëpp Macky lan koy voteel kon jël nañ lépp delloo la kon tey jii danoo jël lépp delloo la ko di waaj nag loo xam ne dafa bari doole muy final. nin koy waajee ni ko ASC Jalooré di waajee noonu la ko ASC Gunóoral leen di waajee te ay kade lanu ay xale yu ndaw lanu amunu takkunu yorunu gisunu yëgunu kon tey bu fekkee yow mi yor lépp yaa joxe te yaa yore teraanga gi bu dee li ñuy wax dëgg la yow yaa yor lépp yaa yore teraanga gi yow Babacar Pascal Diome danoo bëgg nga defal nu teraanga nu waat sunu final bii ndax namuñu dara lu dul jël ko kase kase kase kase kase di wax ne àdduna foo dem rek am na njiit te tey yow leen jiital nga ñëw fii ki mun ta wax baleen ma nag du ni baleen ko ñun mënuñu laa moo tax kon kenn du la ba ñu lay xamal ni fii laa la wax fii ak fa nu fii nu jëmul fi nu dëkk fi nu dëkkul sunu lépp Macky Sall la yaa xam te woon daray àdduna lu dul Macky Sall leen lépp nag delloo ko Macky Sall xam nga yow la fi jiital ñun mën noo gis Mbacke yow lañ gis loolu la yóbbante ci Mbacke boo demee nee ko xalay Thiès randu leen bu dund jalware dan naan randu leen ndax lépp randu leen la waa randu leen nee nanu xale yi fi ne amunu taqunu gisunu yëgunu xamunu dara barki démb lañ judd Mbacke leen fi fekk te Macky Pascal la yónni ñun Pascal lañ mën a gis suñu yóbbante mooy boo demee nan Macky nanu jàppale balaa nu yegg ci Macky yow mi fi ne jàppale nu ba pare buñ demee boo demee wax ko Macky wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant du jox kenn ku nekk wàcc waayam fi mu toog di ñaanal sunu way dawli yu ñu jiitu di nuyu sunu kilifa yi fi nekk ñëpp ci quartier bi di ko commencé te sunu wasila Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké di nuyu imam Mourad di nuyu imam Oustaz Ndiaye ñooñu ñooy sunuy kilifa fii di sant ñëpp di leen gërëm yéen waa koñ bi yéen ñëpp ci disponibilité bi ngeen am suba ba léegi ngeen toog jógu leen ndax benn jëmm muy sunu président Babacar Pascal président foog naa man du ma guddal gannaaw ba ma nuroo nuyoo sama xarit sama lépp muy monsieur Habib kan moom mi tax mi yàlla def ba sama digganteeg yaw taxaw teyit nag lépp lu war ci quartier bi loo xam ne bu ñu ma nee dañuy dem ci président dama naan leen dem leen ci monsieur Habib Kane da koy faj te bu ñu àggee ci saase da koy faj damaa bëgg ngeen tàcc yéen ñëpp monsieur Habib Kane ci lu baax li muy def fii ci Rangoulème président ñun xale yi ñoom dañoo ne dañoo préféré que jeunes yi kese foog naa bu ñu yëgale woon ñëpp dañuy génn mais comme que ñoom lii seen initiative la ñoom ñoo bëgg wane seen bopp na ñoom ñooy def seen sorte de politique wane ni ñoom ñi ngi ginnaaw président Babacar Pascal Diome ñu ne ñoom jeunes yi kese ñoo koy def te it foog naa engagement jeune waxuma bu mag gënaluma de mais engagement gën jeune. gënal na ma fuuf ko engagement mag parce que jeune li mu mën ci moroomu jeune am xëy na mag mënu ko ci moroomu magam am na lu tax mu ngi ci biir ñuy sant yàlla bu baax a baax di xam ne jeunes yi fi ngeen teg seen tànk noon la comme nu ko Modou Ndiaye waxee léegi président Babacar Pascal mii moom lu ne def na ko fii ci randu lem su ngeen xoolee lamp yi mu taaloon daaw moo fiy tàkk ba léegi yi fi jot a tàkk yeneen yi fay boobu ba léegi moo fay foog naa loolu du rôle président Babacar Pascal mais jour bi ñu ko sollicité wax ko ne ko rendu leen dafa lëndëm ci guddi gi la débloqué un million joxe ko ne nan taal lampi naa loolu dara la ñu dem ñu ne président Babacar route bi jóge tribunal jëm hôpital régional ambulance dañ fi jaar ñu malaat dañ fi jaar donc bu fi nit ñi dee jaar ak route bi ni mu yàqoo woon daf ñoo jaaxal mu ne dañ koy defar léegi ànd ak sama xarit Habib Kane ñu daal di koy defar ci nu mu gën a gaawe di jàppale président Habib Kane ci wàllu wér-gu-yaram foog naa fi ñu bëri ñu fi toog ci mag ak ndaw bu dee ndaw ñu seen yaay kenn ku nekk amoon nga carnet mutuelle de santé boo xam ne su yàlla defoon nga tawat ci nga doon faju ci ndimbalu président Babacar Pascal la woon foog naa loolu lu baax la ñun nag bu ñuy wut koo xamante ni bii mooy leader dañuy wut leader boo xamante ni bii saa ñu ko soxlaa jot ko leader boo xamante ni heure bu so euh, carte bi bu ko soxlaa ñu jot ko parce que ñun li may wax li ma njëkk a wax rek laay waxaat a chaque fois ñu soxla Babacar su suñu ko jaaree ci man dama naan leen bu leen àgg ci moom dem leen ci Habib Kane mu def ko ci jëmm Babacar Pascal kon nag kuy wër leader kooku mooy leader président foog naa du ma guddal. damay yam foofu rek man xam naa yow xam nga yàlla xam na euh, xale yi ñu ngi ci sa kanam ñu ngi sa gannaaw ñu ngi lay jàppale jeunes yi ñoom ñoo ñëw wax ma ko de ñu ne ma lépp lu ñu mën pour ñu gañe école Malick Kaïré bii ñu ngi ci te foog naa incha allah rabi dinañ def tout ba gagné école Malick Kaïré bii. xam nga lu tax ñuy gagné école Malick Kaïré bii président parce que jeunes yi ñoom ñoo doon voté di voté ki fi di voté ki fi nekkoon. ñoom ñoo jël décision ne ki fi nekkoon bàyyi nañ ko dañuy jàpp dañuy jàppale président Babacar Pascal votel Malick euh, votel Macky Sall pour mu gagné école Malick rek kon gëm naa ni école boobu dinañ ko gagné. centre boobu nag dama koy faral di wax chaque jour centre bu sensible la parce que dafa am koo xamante ne dafa bokk ci ñun dëkk randu leen dafa voté li ciy xew après du ma toog fii di ko wax parce que ñun waa randu leen lañ xamante nañu. xam nañ kooku un suñu soxlaa bu ñëwee li muy jëflanteeg ñun su paree bu demee ni muy jëflanteeg ñun loolu xam nañ ko merewuñu kenn it nag waaye ñun ñoo jël décision suñu bopp ànd ak jeunes yi ne école Malick Kaïré bi ñoo ko moom ñoo fay voté te fas yéene koo gañe wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak santam waaw comme ni ko sama bi waxee léegi rek juste dama ci dolli leen lu ndaw rek. boo gisee ñun ñu engagé wu pour ànd ak Babacar Pascal ñoom du hasard du dara mais dañu gis ni Babacar depuis le début moo ngi jàppale koñ bi Babacar am na ay ak social yu mu def ci koñ bi avant que ñun ñuy décider pour ànd ak moom parce que Babacar ba mu nekkulee maire nekkulee dara la fi poto lamp yi toj mu defar ko defar ko ba fi tali yàqoo ci koñ bi loxo defar di créer fii ay carnet de chantier di ko dimbalee maire yi di jàppale ASC yi kon donc kooku bu ñëwee nii nañu liggéey pour xool nan la ñuy avancer koñ bi dinañ sawar ànd ak moom parce que ba mu doonulee dara la commencé jàppale koñ bi kon dañuy ànd ak moom di liggéey pour di xalaat ni bis bu nekkee dara dina gën a sukkali randu leen parce que ñun ay jeunes lañu comme ni ko Yacine Diaye waxee rek ci développement wu randu leen la ñuy dox te moom moom ci développement wu cees te ñun wax dëgg yàlla kuy développé Thiès lañ soxla sawar a àndal kuy développé suñu koñ d'ailleurs ñun fii koñ la boo xamante ni dafa bëri ay chômeurs te il faut ñu dox dindi ci loolu fii ci quartier bi naka la ñuy dindee ci loolu ci quartier bi ñu ànd ak koo xamante ni dinañu mën a jàppale ñu de jeunes yi continuer seen jàng mën a am ci lu ñu jàpp dimbali seen waajur yi parce que ñun loolu mooy suñu objectif franchement ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di kontaan ci euh, meeting de ralliement bi franchement kontaan nañ trop ci ñi fi teew ñëpp. Wassalam. À toutes et à tous, amis collègues, c'est un immense plaisir de me, de me présenter devant vous ce soir. Je souhaiterais commencer ces remerciements par un merci général envers ce rigoureux travailleur. Je veux nommer M. Babacar Pascal Ndion pour ce beau geste qu'il a accordé aux habitants de Randoulène. Ce n'est jamais facile d'innover dans ce domaine et cela nous permet d'évaluer dans des conditions plus sereines face aux défis du quartier. Nous ne briderons jamais votre activité. Je vais interrompre cette ainsi dans ce discours tout en ayant une conviction que toutes les personnes qui sont là sont satisfaites. Le miséricorde veille sur nous. Merci. ñu ngi lay sant di ñu ngi lay sant quartier bi ñun ay ndaw kase lañ ñun ay ndaw lañ ñoo fi nekk muy association adhérents pour le développement de Randoulène ñun nag leader yu bari ñëw nañ fi c'est une association boo xamante ni c'était apolitique ànduñu woon ak kenn ñu ñu toog toog waxtaan ak suñu biir ànd ak suñuy yaay ak suñuy papa suñuy mag ñu waxtaan ñu xool xool waxtaan suñu biir ñu ne ñun war nañoo am ku ñu jàppale parce que dañuy bëgg a def ay activité développer suñu koñ mais duñ ci mën dara il faut que ñu làqatu ci ginnaaw keneen pour mën a développer suñu koñ pour cela loolu ñu waxtaan ci lañ ni pourquoi pas ñu ànd ak monsieur Babacar Pascal Ndione parce que gis nañ ñu rafet li ngay def fii ñun nag ay ndaw lañ nekk ci koñ bi bëgg ku ñu jàppale ay xale lañu fii boo gisee koñ bi yëpp ay jeunesse ñoo fi nekk yoo xamante ni dañuy jàng am seen diplôme dañuy toog am ñu emploi léegi ku ci jóg da ngay dem côté bii ñii dem côté bee loolu doxalul koñ ku nekk xëcc fii ñun ñëpp ñu booloo jàpp doon benn ñu ne dañuy soqale suñu koñ loolu lañu bëgg soqale suñu koñ merci. tey yàlla julli ci yonent bi sallallahu ñuy gërëm képp ku fi taw ci toogaayam. képp ku fi teew góor jigéen mag ak ndaw di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa muy le président Babacar Pascal Dione ñuy ñaan ñëpp tàccuwaat ko encore une ak délégation bi mu àndal yëpp mënuñu lim mais mën nañ ci ràññee suñu ay mag suñu ay référence suñu ay xarit suñu ay souteneur muy Habib Kane muy Dame Diakhaté muy ñeneen ñi mu àndal ñi dëkk ci quartier bi mu it Aïcha Aw mi bokk ci moom aussi nekk suñu jigéen suñu xarit suñu lépp kon nuyoo boobu yëpp ci côté boobu ñoom lañ koy jox leneen li aussi ñu ngi nuyu waa ASC Jaloore bi fi teew yëpp ñu yor seen kàddu amaana ñoo ci gën a doon xale ñu jox ñu ko kon loolu sant yàlla la waaye sañ nañ wax ni nit ki doomu aadama moom ci li nga bokk rek nga mën a fësal ci nga mën a doxee kon kàddu yi ñu fiy jël c'est pas des paroles politiques d'une part one politique d'ailleurs mais une ASC ab ab politique donc équipe xar baaxam ci ay textes politique amu ci wàll waaye politique bu la jëfalee ci équipe di nga wax jërëjëf ci équipe la la defalee kon loolu mooy amener citoyen bi bokk ci équipe bi mu xool lu ko day ci candidat ak ban apport la la nit amal nga politigal ko kon ñun ci suñu kàddu gi ñu waxee du kàddu politique waaye kàddu équipe la waaye ñun bu ñuy politique ci sama jëm man Macky Sall laay politigal donc loolu sama conviction personnelle la leneen li ñu koy wax ci turu jeunesse rendu leen bi yëpp da am lu jafe tey mu Ndiaye wax na ko tey mën na ni rendu leen nord ba sud ñoo fi taxaw et lii c'est jamono bi mu toll nii dem nañ ba naan mbooloo yi ñooy doole il faut nit ñi booloo ñu nekk dans l'unité ñu mën a taxaw suñu randu leen gii mën a jëm ci kanam parce que tey ñëpp xam nañ ko mooy ñaari ASC yi fi ne guney randu leen suñu doomu ndey ñu leen nuyu ak ASC Jaloore bi ñu bokk tey fii ñu toll présentement nii gune randu leen mooy détenteur di trophée des phases nationale kon loolu titre la leneen leneen li mooy jaloore bi ñu bokk ñun ñoo war a représenter le quartier en finale zonale senior bu ne randu leen ñëwaat di représenter waat di représenter waat randu leen en finale cadet kon mën nañ ni bis boobu buñ ci teewee na bokk nañ ko ak lu ëpp fukki quartier benn mais randu leen dina ci saf sàpp ci mag ak ci ndaw kon ñun gëm nañ suñu bopp mais loolu it lii tax ñu mën a am doole mooy il faut les politiques il faut aussi nit ñi dëkk ci quartier bi yor seen i seeni seen i ñu ñëw wàccaat gestuwaat nit ñi dans l'unité parce que je ne cesserai pas de le dire mooy ranu leen li fi mën a am ci nit ñi épanouissement bu ñu mën a am loisir bu ñu mën a am football moo fiy dajale nit ñi kon tey loolu bu ñu ko téyee muy football ñu siy gis suñu bopp dafa war a aller de l'avant mais it gàllankoor am na mënuñu ko fi wax ci lu bari terrain amuñu ko muy équipe yëpp tey randu leen équipe bi amoon nañ terrain amoon ko tuñ ko pour des raisons ñëpp xam nañ ko tey loolu lépp randu leen soxla na ko te suñu jeunesse bi y a les y des talents extraordinaires lépp a ngi fi y a l'unité doole mu ngi fi engagement baa ngi fi mais am na lu ñu manqué loolu peut-être avec votre aide ak sa aide équipe dinañ ci gën a waxtaan ci ay fànn yu dul yi ñu xam ne aussi tey li c'est pas le hasard kontaan nan ñu ngi lay sant di la gërëm que ni randu leen tey ñu ngi wax ni tu à l'heure donc semaine bi ñu ko war a soxlaa ak jamono ji ñu ko war a soxlaa ci nga ñëw taxaw pour jàpp ñu kon ñu ngi lay sant di la ñaan ensemble ñu gën a gëm liggéey ñu lay dénk aussi suñu rakk yi fas yéene taxaw ànd ak yow muy mouvement bi que ni am nga lu jafe su ñoom foofu la ñuy mën a yem am nga lu jafe mais lépp lu ñu fi jëlee na am suivi ñu continuer ko ëllëg ci biir gëm nañ ni lépp lu Macky Sall di wuti baatu politique laay wax nag mën nañoo gagné Mali Kaïré incha allahu rabbi jërëjëf au soir du 24